alors ñu nga monsieur Guèye euh, di Guèye original euh, grand responsable euh, gëm sa bopp bu Bougane géey Guèye instant yi nii ñu ngi ci vraiment problème bu rëy élection dina am du am le 2 le 2 juin la Macky Sall dem du dem ban jàngat nga def ci situation politique mais jàngat bi may def rek mooy man yàgg naa ko wax à travers les plateaux de télé yàgg naa wax na président Macky Sall en réalité cinéma cest à dafa def benn pièce théâtrale boo xam ne day indi épisode par épisode et cela on l'avait dit depuis tey jii président Macky Sall boo dégloo discours am bi mu wax nga xam ne ne kii parewul pour dem faut savoir lire entre les lignes président Macky Sall nee na la que moom mandaam day jeex le deux journal ne ko ndax sa mandat bu jeexe da ngay démissionné mu ne ko du ma démissionné parce que mandat amatu fa mandat jeex na indi la article 36 alinéa 2 c'est-à-dire moom moo nar a toogaat ba ñu am successeur am. day joué yàgg na ñu wax loo xam ne defu ko cest di dire que yàgg na wax loo xam ne nii defu ko nañu woon di dëgg rek tey jii coono bi ñu nekk président Macky Sall moo ñu teg tey jii bu fekkoon ne li mu wax dëgg la ci moom doyul ni sëkk ci pouvoir bi dafay démissionné su démissionné président assemblée mooy ñëw te il est encadré sur 60 90 jours pour mu organiser élection ce qui veut dire que président Macky Sall pareegul bu ne doyul na en réalité doyagul sëkk parce que bu doyaloon sëkk day def ni Senghor def jël premier ministre am teg wala mu démissionné assemblée ñëw président assemblée ñëw taxaw donc dafay joué ñun te ragal nañ le bu jotee mu indiwaat beneen épisode ci pièce théâtrale bi mu nekkee pour man jàpp naa ne ba tey ji président Macky Sall en réalité il ne mesure pas l'ampleur situation bi ñu nekk parce que dafay joué donc gis nañ ne euh, ci ci proposition dialogue bi ils ont proposé à ce candidat yoo xam ne dañ leen reculer recalé ñu xoolaat seen dossier te yéen seen candidat di Bougane Gueye Dany ñëpp xam nañ ne liggéey bu mu liggéey fii Sénégal tout le monde a été surpris du fait que ñu ñu ñu ñu ñu ñu kale ko ci ci parrainage yi alors puisque am na possibilité boobu moom mu mën a ñu mën a réexaminer euh, euh, euh, candidature am est-ce que yéen bëgg ngeen ñu ñu ñu revoir. position wu euh, les candidats recalés notamment au niveau du conseil constitutionnel par le parrainage. sànq président Bougane mu ngi koy wax ci conférence de presse bi bu Front pour la résistance nee moom ñun suñu jëmm du loolu moo ñu intéressé mais réew mi ñu soxal tey métti na ñëpp xam ne dañu spolier suñu parrainage ñëpp xam ne dañoo teg injustice mais tey lu ala yoon la ak lu mu métti métti dañ ko accepté conseil constitutionnel la. donc tey jii ñun li ñu gëm bëgg mooy les 19 ñoo war a dem élection ñu organiser ko avant le 2 avril président Macky Sall kii koy succédé mu paas ko lenge yi parce que ni ko président wax Bougane waxee réew mu ne ñum lañ ko dox nañu delloo réew mu ne ñum mais li muy def nii mu ngi yóbbu ci réew mi guuta boo xam ne moom ci boppam du ci génn te dina metti pour Sénégal génn ci guuta googu donc ñun suñu bopp parce que xool ngeen législative yi bañ ñu kalee dañu wàcc campagne pour l' opposition ñun en réalité nee leen ñun duñ ay politiciens. ñun duñu ay politiciens amuñu même mindset bi ko ñoom tey jii kalewaat nag ñu may tey dañuy jàppale opposition xeex ñoom pour que changement am parce que gëm na ne lii ne ci réew mi baaxul ci réew mi. alors ñu ngi wax aussi à 2024 ban gis ngeen ci am en tant que gëm sa bopp wala yow personnellement bu dee gëm sa bopp waxagu ci. non amnistie bi moom d'accorduñ ci te dañ koy xeex parce que ñun yaakaar nañ ne ne amnistie bi pour président Macky Sall ay ñoñom ah parce que ils ont commis trop trop waaw de de de bévue de de waaw de problème dans ce pays amnistie bi en réalité pour ñoom la bu nit ñi nelaw tey jii mënoon na da ngay amnistie ñoo xam ne tey yaa ngi leen jàpp ay weeri weer te bàyyi woo leen jugé woo leen nga jékki-jékki génne leen donc képp koo xam ne téye nañ te jugé dañuy am présomption d'innocence kenn mënu wax ne ñoom ñoo def wala def ñi nga jàpp ñëpp da nga leen di bàyyi parce que jugé wu leen amoon loo leen toppee en réalité donc ñooñu jaruñu amnistie et puis du mooy def amnistie moom pare na ci réew mi. kii def amnistie mooy président bi koy remplacer amnistie bi du dara lu dul ay feela yoo xam ne ñoom dañ ciy gis seen bopp ñoom ñi fi ne en réalité c'est pour se protéger et protéger ñi nga xam ne ñu ngi fi yàgg def ay njombe ci réew mi. alors instant yi ñu ngi jëm ci élection kan mooy seen candidat. non xam nga mënuñu ci wax tànnoon nañ ba pare teg mais ba président waree wax aussi dañu taxaw parce que nag buy taw kenn du fobeere tey mënuñu ci wax parce que tey def nañ seen dialogue national nee na dina ko yóbbu assemblée nee na dina ko yóbbu conseil constitutionnel amnistie bi na ko yóbbu assemblée loolee recommandation dialogue conclusion na ko yóbbu conseil mais ñu ngi déglu tey ji kenn xamul en réalité si lan la ñu jëm ndax élection day avant le 2 ndax élection day am le 2 avril tout est suspens au niveau du conseil constitutionnel et on espère qu'il va dire le droit parce qu'il a déjà dit le droit avec euh, kii 14 bu mu génnee waaw donc mënoo koo wax merci beaucoup Guèye ban kaddu ngay tëjee. mais li may tëjee rek mooy président Macky vraiment Sénégal jox na ko lépp Sénégal warul toog Sénégal di nekk la risée du monde parce que Sénégal dafa mas a nekk démocratie moom ñëpp ko naw ñëpp ko bëgg te tey mu ngi yàq lépp pour propre moom li mu bëgg bëgg bëgg et c'est pas normal liñ koy wax mooy. mu respecter li constitution bi wax respecter li conseil constitution wax ñu dem ci ay élection très rapidement de avant le 2 et ku jël réew mi mu jox ko ko ci jàmm comme ni ko prédécesseur am def Me Abdoulaye Wade Sénégal ne ci jàmm parce que nag Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xal ñaar foo manti far bu bu réew mi soxla ñëpp gis nga tey dañoo boole seen doole ci front bi pour ñu mën a génn ci impasse bi ñu président dugal merci à vous jërëjëf <laughs>